Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokk àdduna asalaamaaleykum comme ni ñu leen waxee saa su ne yéen ñu gis sax bu ngeen ñu gisee rek am na lu tax bu ñu am na lu tax mooy kaddu askan bi bu ñu kàddu askan bi askan bee ñu yónni fi ñu askan bi yónni nag xam ngeen fi foofu fan la tey ji fan la ñu askan bi yónni waa tey ñu ne golfe sud te bu ñu golfe sud tey ji daane golfe nord bu ñu golfe nord ne laas ne feneen ak feneen tey ji fi ñu jëm si tey mooy ki nga xamante ni kilifa la ci kilifa goo xamante ni kenn dootu ko lam-laamee tey ci biir Sénégal waaye kenn dootu ko lam-laamee tey fi nga xamante ni fa la dëkk tey mu nekk Golf Sud mu nekk adjoint maire mu ànd ak Khady Mahécor Khady fi nga xamante mooy Golf Sud tey ji yaakaar naa ne Yewwi Askan Wi dafati nañ seen mënin waaye nag tey ji dañ koy bàyyi moom mu nuyoo bran boobu la nag jarul ma leen koy présenté ndax yàgg ngeen ko gis kilifa gi maa ngi lay siyaar baax a baax waaw noonu nag zalika macha allah ñu ngi lay nuyu avant di la dalal Eh, di dalal yi tamit eh, téléspectateur yu Salam Vision ak Kiki TV yëpp vraiment di am mbégte ak contentement ci di participer ci émission bi ñu naan kaddu askan wi eh, di Ibrahima Diop premier adjoint au maire de Golf bokk ci coalition Yewwi Askan Wi la grande coalition Yewwi Askan Wi mais également di coordonateur parti de l'unité et du rassemblement bu muy PUR bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy ak Golf Sud. macha allah yéen a ko gis euh, moom mi nga xamante ni nuyoon na ko waa tey jii euh, bu ñu amee ci ndaw ci li nga xamante ni euh, balaa ñoo gën a xuus si waxtaan bi grand Ibou Diop fan la démarré ak fan la déparé ba yàlla suñu borom dogal tey jii mu nekk ak juin mai. waaw grand Ibou Diop déjà damay jël li olof naan delloo mbaatu ca ndaa la parce que olof moo ne lu yëngu am na lu ko yëngal tey tamit balaa may xuus ci waxtaan wi damay delloo njukkal d'abord samay wayjur mais également di delloo njukkal comme ni ma koy faral di waxee ci samay euh, jotaay yu bari celui qui a toujours assuré le lead dans tous les combats démocratiques de ce pays muy euh, Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si moom yi nga xam ne sooy xool euh, depuis mille neuf cent euh, quatre-vingt wala lu ko jiitu soixante-dix-huit ba léegi dafa nekk ci formation di tàggat ndaw ñi ci jëlee loon seen responsabilité ci réew mi ba ni mu sosee le parti pur en 1998 lu ko jiitu histoire am na loo xam ne moo ko ko sédd muy taxawaayam euh, ci wàllu opposition parce que ndeysaan benn waaye daf ma ko mës a laaj ne ma lan moo tax yéen tout le temps ngeen opposé man na ko ñun opposé wu ñu c'est-à-dire nguur gu ñëw soo wàccee yoon ah, ñun ñu taxaw jàkkaarloo ak yow tabarakallah donc ci noonu ci formation boobu la ñu génnee yàlla dogal nag en tant que honnête citoyen ñu nekk Golf Sud euh, gis ne am nañ suñu baat ci biir langue politique yi ñu jël suñu propre initiative dugg ci biir politique ngir yàlla d'abord assainir la seen politique wan wane ne am na beneen façon bu ñu mën a defee politique bu bokkul ak xaxarante bu bokkul ak sagante bu bokkul ak wane loo xam ne bokkul ak suñuy valeur muy les valeurs fondamentales de la dignité humaine yi nga xam ne moom la ñu maam yi bàyyi loon ci noonu nag suñu ndaw ñoo ngi ko defee golf jànge école golf sud daanaka suñu cursus scolaire euh, diggante golf sud ak Parcelles Assainies ak peut-être xëy na tu génn tuuti jëm côté HLM ak yu demee noonu euh, diggante boobu lañ ko lañ ko doxee. Euh, li nga xam ne nag moo ñu gën a poussé pour ñu dugg ci wàllangu politique yi bokk na ci wàllu sociale parce que dañoo taxawoon ci di jàppale askan wi ci li nga xam ne mooy seen i bëgg-bëgg seen i soxla parce que gis nañ ne euh, collectivité territoriale yi à l'époque am na loo xam ne mënuñu ko matal. ñu tàmbali ci sos li nga xam ne mooy un mouvement citoyen tuddee ko CV citoyenneté et valeur Euh, di dox ci wàllu citoyenneté di dox ci wàllu jàppal ma jàpp muy développement euh, ba yàlla dogal euh, bëstu ñàkk egsi ñu jàppale leen comme yàlla ngi dogal ne dañoo gisoon na ñoo bokk gis-gis daan ànd ak honorable député Ndeyaw Mbodj on a vraiment cheminé ma di ko nuyu au passage ñu jógee ci loolu nag ah liñ naan kuy wàlli yan sa dëkk moo tëggul en mille en 2017 le parti pur ci ndigalu sang bu tedd bi muy Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha mu jox ñu ndigal ne nañu liggéey ci parti bi booba léegi nag wax dëgg yàlla ñoo ngi ci biir parti bi eh, di ci bay suñu waar ba ni coalition Yewwi Askan Wi juddoo fekk aussi man j'étais candidat à la candidature nekkoon euh, liggéey ba nga xam ne pratiquement j'étais en pole position ba ñu bëri sax dañoo yaakaar ne man maay nekk candidat bi mais comme dañoo nekk dans une coalition respecter aussi euh, la dynamique unitaire ñu tabb ki nga xam ne mooy sama jigéen di sama rak di sama xarit euh, di référence aussi ci ndaw ñi muy euh, Khadija Mayeko Diouf ñu tabb ko ah ñu liggéey jàppale ko ba yàlla dogal li mu dogal tey jii moom mu nekk euh, la mairesse ñun ñu topp ci ginnaawam. Hmm. ok macha allah yéen a ko gis si kaddu yi nga xamante ni yëkkat na ko mu nekk kaddu yi am importance di doon kaddu yoo xam ne mooy kaddu dëgg la ci biir dëgg ndax yaakaar naa li jógee ci xol tam ci xol rek la mën a dem tey ji euh, foofu noonu mooy fi nga xamante ni fa nga daggee léegi mooy maanaam euh, ci langue politique bi tey ji ñëpp newoon nañ yow yaay doon candidat bi nga xamante ni ci Golf Sud yow la yaay toog ci biir maire bi tey ji yow nga dem ba ci biir xam ne carrément tey boo songu woon xeex bi da nga koy gagné da ngay téye sa gox ndax liggéeyal nga leen ko avant ak adjoint de maire ñu gis ni tey ji euh, ci peuple ñi nga xamante ni maanaam dañuy bokk ak ànd ak kenn léegi dañuy dem ba ci biir xiiro ak ŋaayoo am ci ñu gis ni yow bokkoo ci xiiroo gi bokkoo ci ngaayo bi te yow da ngaa ñëw ànd ak kenn ànd ak moom def ak moom li nga xamante ni moom ngeen gëm muy ànd dimbali sa gox te yow su borom tey ji dogal tey moom mu toog fi yow nga ñëw ànd ak moom lan moo tax nit ñi di ke euh, am na keroog tamit euh, ci benn ci benn nit koo xam ne dama toog ak moom mu ne la moo tax grand Ibou Diop moom demul woon ci parti boppam ànd ak boppam jël meeru golf donte sax waa golf gëm nañ ko mais naka nga def tey ba déggoo waa golf ànd ak ñoom déggoo ak waa yeewee askan bi topp seen ginnaaw. waaw c'est très xam nga déjà am na loo xam ne moom lañ tuddee euh, respect bi nga xam ne mooy am ci biir parti bi euh, muy discipline de parti parti bu ci nekk dafa am ay charte yoo xam ne ñoo ko tënk. charte yooyu nag li ci ëpp solo mooy respecter discipline de parti ñun euh, dafa am koo xam ne moom la ñuy déglu parce que léeg-léeg sax ndeysaan ñu xaw ñu sànni xeer ne ñu yéen parti daayira ngeen mais euh, am njiit loo xam ne visionnaire la am njiit loo xam ne dafay gis lu ñëwagul parce que sooy xool li xew tey ba mu koy wax c'était en 1993 en 1993 ci ay meeting yoo xam ne defoon na ko centenaire ci ay meeting yoo xam ne defoon na ko Thiès def ay tournée un peu partout dans le Sénégal di wax ne crise d'autorité crise de compétence crise de euh, pouvoir loolu ba mu koy wax c'était en 1993 boobaak léegi sa fait plus de trente ans kon tey ji histoire jox na ko raison kon visionnaire boobu su fekkee yàlla dafa dogal nga am chance bokk ci ëttam bokk ci kuréelam li gën mooy nga déglu parce que benn euh, lépp katu olof day wax ne soo nekkee ci àll boo xam ne dafa bëri ay rab yu fàddaate nee na da ngay sa bopp sàmm bi ndax sàmm bi sàmm bi moo xam fa xont wa yombee moo xam fa wëgg wa yombee moom nag bam ñu joxoñee ne ñu coalition yeewi askan wi la amatuñ beneen choix lu dul liggéey ci coalition yeewi askan bi candidat bu ñu mënta indil ñun xooluñu jëmmi candidat bi mais dañuy xool euh, kàddu kilifa gi nga xam ne jib na mu ne liggéey leen ci coalition yeewi askan wi donc on a battu campagne comme si on était le candidat te tey jii macha allah yàllaa ngi dogal ne liñ naan euh, euh, mag dina toog di gis loo xam ne xale dina yéeg ci kaw garab du ko gis bañ ñuy joxe jee Xadija may ko ci bëggam golf ci détermination ci am fullaam am faydaam nekk nag gaynde ci pas-pas ndax gaynde dafa am ñaar gaynde ci fàddaate boobu soxlawuñu ko waaye ki nga xam ne am na gaynde gaynde la ci pas-pas am na pas-pasu génn dem uti ay partenaire am na pas-pasu poser ay jalons am na pas-pasu osé teg ay ay euh, mécanismes yoo xam ne leer na leen lii c'est pour le développement spécial de la commune de Golf Sud kooku nag soo amee chance su yàlla booleel ak moom nga bokk ci équipe am ah c'est une fierté ñu di ko ñaanal yàlla euh, li nga xam ne yéene na ko ci golf yàlla na yàlla mottali ko ndax man dama daan wax naan ku ma gën a bëgg golf wax dëgg yàlla gisuma ko mais ba ñu demee ba ci biir yàlla boole ñu. ñu ànd cheminer ensemble gis naa ne ndekete man fa mu yamoon ci bëgg golf gis naa koo xam ne moom a joggati fuuf te di ko ñaanal itam yàlla yàlla mottali ko. tey jii euh, yaakaar naa ne sa bëgg-bëgg golf nga gis koo xamante ni yéen ñaar yéen a yam bëgg-bëgg ba tax nga nangu ni moom mu jiite la kon yaakaar naa ne kon kooku bëgg na goxam tey jii ñu gis na golf léegi commencé na am ay changement donte bëri na ay langue politique yu fi nekk ku ci nekk yaa ngi xëcc jëmmale sa boor mais yéen bi ngeen toogee ak léegi yàggul. mais gis nañ ni golf léegi commencé waat na changé ba ci biir mairie bi gis nañ ni a ngi koy tabaxaat beneen anam boo xamante ni wute na ak anam yi nga xam ne moo fi nekkoon essence yi nii bi ñoo leen financé wala essence yi Yewwi Askan Wi ñoom waaw xam nga mairie moom euh, mairie bu mu mën ci doon euh, li koy doxal du lenn lu recette yi nga xam am na ko euh, du lenn itamit li nga xam ne léeg-léeg bon bien vrai que tardivement dañ ciy jot mais muy les fonds de dotation ak les fonds de concours. loolu vraiment ñoo ngi ciy jot xëy na peut-être euh, ba ñuy soog a toog ak léegi ça fait juste un an euh, bañ ci jot itamit fekk na wax dëgg yàlla suñuy laaf tooy na mais quand même euh, su fekkee da nga nekk ci dynamique liggéey am na loo xam ne du la tardeel état su la jàppalee baax na su la jàppalee nga dem uti say moyen bopp parce que mairie li nga xam ne moo koy doxal ce sont les partenaires te am nañu vision c'est une équipe très jeune Euh, am ay mag ñu nekk suñu biir nag ay mag ñoo xam ne c'est des sages di ñu orienté di ñu teg ci yoon vraiment ñooñu ñooñu orienté teg ñu ci yoon ba ñu am sañ-sañu tey jii wax dëgg yàlla dem fëggi euh, ce qu'on appelle les grandes portes te on a des projets ay projets yoo xam ne vraiment ay projets de développement la des projets qui vont faire émerger la commune de Golf Sud te loolu déjà c'est c'est c'est c'est c'est extraordinaire su ah, sous la sous sous la tutelle de madame le maire Khadija Mayekor Euh, macha allah yéen a ko dégg sama gars yi yéen a ko dégg am na am na am na nag ñuy commentaire ci suuf tuuti ne na grand Ibou Diop dafa am loo xamante ni waa golf dañ koy dégg ci moom mooy maanaam dafa am ay maire yoo xam ne dañ fiy nekk di jëm ci sa biir kër lu bokkut teg sa biir fond bi nga xamante ni yow ci ngay jot liggéey nga leen ci dimbali kon yaakaar naa ne ñooñu ñoo la ciy sant di la ci gërëm nga ca ngalaama nag nit nag bu la defalee baax nag am nga droit taxaw seede ni kii kat defoon na lu baax kon gàcce ngaalama ndax yaakaar naa loolu tamit sa devoir la mais tey yéen ngi jëm yàlla dogal ne ni jël ngeen mairie bi mais tey bi ngeen jëlee mairie bi ak léegi yéen jafe-jafe ngeen gën a am ci biir mairie bi nga xamante ni yéen tey jël ngeen waaw xam nga euh, Golf Sud dafa nekk benn commune boo xam ne euh, dafa rëy commune bu yaatu la sooy xool ci biir géejawaay tey tamit yàlla dogal ne koom gi dafa néew lool. su ñu bëggee sukkandiku ci li nga xam ne moom mooy suñu koom mën naa ne mën nga fi nekk cinq ans di nga def te li nga def kenn du ko gis mu ngi mel ni kuy rëdd ci ndox donc li nga xam ne par exemple moom mooy tey ji li taxaw mooy ñu fexe euh, dem uti ay partenaires suñu projet yi nga xam ne am nañ ko muy des projet phares ñu fexe ko développer euh, beneen bi ci toppit di sukkandiku ci ay fonds yoo xam ne peut-être xëy na fii lañ ko fekk mais aussi dañ ko orienté jëmale ko ci yeneen secteur comme par exemple fonds PACASEN nga xam ne ALD agence euh, agence euh, régionale de développement ñoom ñoo koy piloté mu nekk euh, un projet étatique financé par la Banque mondiale et l'agence régionale l'agence française de développement AFD ñoom ñoo koy ñoo koy piloté mais yàllaa ngi dogal ne ci suñu vision ba ñu ñëwee gis ne par exemple golf fonds yooyu dafa waroon dem ci li ñu tuddee ay pavage waroon dem ci la réfection des rues wala yenn yi mais ñun dañ ko jël orienté ko ci lu mel ni par exemple la réflexion euh, de l' école Hamo parce que ku xool ne a ah, école Hamo 2 dafa nekkoon école boo xam ne pratiquement toiture yi demoon nañ ba yàqu école bi demoon na ba nekk euh, pratiquement en état de délabrement très avancé bon ba ñu toogee euh, ci bureau municipal ñu xalaat ne ah loolu kat jaadu na ñu jël dugal ci suñu loxo ba ñu xalaatee gis ne fond pakaseen yi moo ngi fi te balaa ñuy tabax ay mbedd pour que ay nit di ci di ko di ko jëfandikoo nga fexe tabax école ba nga xam ne tey jii école boobu mooy tabax ay doomu aadama doomu adama yoo xam ne ëllëg soo leen defalee ay pavage euh, dinañ xam ne kat lii nii lañ ko war a entretenir tenir maanaam école mooy jàngal nit ce qu'on appelle la citoyenneté te citoyenneté mooy tax nga mën a entretenir les infrastructures yi nga xam ne mais bi dina ko def ëllëg pour ñu gën ko mën a toppatoo donc école Hamo 2 boobu euh, sooy xool dañu dañ ko jël raser ko entièrement ba mu yegg suuf fas yéene ko tabaxaat mu nekkaat une école boo xam ne bu bees tàq lay doon six classes dañ fa fekkoon dañ koy def douze classes boo xam ne bu ci nekk day am euh, benn niveau beneen bi ci topp les blocs sanitaires dañ ko réfectionné à cent pour cent directeur bi ñu tabaxal ko école euh, ñu tabaxal ko bureau euh, vraiment réfectionné école bi ba nga xam ne dafay nekkaat école boo xam ne bu bees tàq lay doon et loolu aussi tamit j'invite nos collègues maires yi nekk ci yeneen gox-goxaat yi pour que ñu mën a inspiré wu ci modèle yu mel noonu aussi jël yenn fonds yi nga xam ne peut-être xëy na war nañ ko mën a orienter di ko orienter di ko dugal fu fu mel noonu parce que li ëpp solo mooy la vision te vision mënoo ko teg lu dul ne danga tabax doomu adama doomu aadama boobu tabax ko dafay dellu ci projet bi nga xam ne moom la ñu présenté waa golf campagne ko muy H27 nga xam ne moom mooy dellu ci tabax doomu aadama H27 c'est horizon horizon 2027 waaw. macha allah yéen a ko dégg ah, kon. gars yi comme ni ngeen koy gisee rek yaakaar naa nag ku am sa commentaire nag mën nga commentaire nag ci biir yaakaar naa nag moom ki koy jéem ak ki nga xamante ne jéem ko ak ki nga xam ne dafa nekk ci li mu war a nekk yaakaar naa nag ci li mu nekk rek la war a nekk mais bara boobu noonu comme que première partie bi jeex na dañuy xuus tuuti ci deuxième partie bi bara émission bee jeex ci fi ñu jëm 2024 Ousmane Sonko nekk leader ci Yewwi Askan Wi donte yéen topp ngeen ko ba jël seen maire toog ci élection présidentielle ñu bari naan Macky Sall troisième mandat la bëgg toog ñi naan du ko toog nit ñi commencé ko werante te instant yi nii am na ay quelques problèmes yoo xamante ne ñu koy commencé jël di ko commencé indiwaat ci ay yeneen dossier di jëm ci diggante Sonko tey ji problème bi nga xamante ni tey Macky Sall tey ji nee nañ ah ci li ma dégg nee nañ Macky Sall fi nekk nii Sonko dem élection du arrangement léegi yéen ngeen xalaat ne fi nekk nii Sonko lan la war a doon ci biir man dama jàpp ne d'abord c'est la démocratie te démocratie mooy nga respecter nit ku nekk euh, nga respectel ko xalaatam respectel ko doxalinam et puis sàmmonte aussi càrtu réew mi mooy la constitution mais tey jii li ñu gis mooy euh, ñoo ngi jalgati au plus haut niveau la constitution euh, di ko utiliser di ci xeex ay opposants man noonu laa ko mën tuddee di ci xeex ay opposant parce que tey jii je ne peux pas comprendre depuis Karim Wade ñu gis ne c'était un opposant ñu jël ko faagaagal ko génne ko réew mi xalifa Sall ñu xañ ko ay àqam ak ay yelleefam tey jii euh, ki nga xam ne moo nekkoon lieutenant di Barthélemy Diaz gis nga le procès Ndiaga Diouf ka nga xam ne moo ko seetaloon démb muy le président Macky Sall on se souvient ba mu demee Mermoz ci euh, euh, Jean Paul Diaz Bart toog mu setal ko daal dina ne lii c'est c'est un complot c'est de la politique ka nga xam ne moo ko setaloon démb tey jii moo ko takkalaat ba atte ko tëj ko donc jugement boobu wax dëgg yàlla sooy xool da ngay xam ne tegul fenn euh, may wax nag ne dafa am beneen génération boo xam ne dafa judd ci diggante bi muy parti yi nga xam ne dañoo dekkiwaat euh, benn waxuma sax euh, dekkiwaat mais parti yi nga xam ne dañoo jugaat amaat beneen taxawaay ci langue politique bi ku mel ne le parti de l'unité et du rassemblement muy PUR nga xam ne militantisme authentique des militants yoo xam ne ils sont convaincus que ne ñoom ñoo war a jël seen alal def ko ci parti bi ngir parti bi mën a dox ay militants yoo xam ne euh, ñoo war a jël seen xaalis dugal ko ci réew mi pour réew mi mën a dox même philosophie boobu nga gis ak suñu mbokk patriotes yi ñu tuddee leen waa PASTEF ñoom gëm nañ ne seen dërëm dërëm yi moom moo mën a tax Ousmane Sonko egg fa mu jëm moo tax duñ ci tàyyi duñ ci toqi ils se battent corps et pour fexe ba seen leader fa mu war a egg mu yegg fa tey jii nag euh, li ñu gis ci wàllu woowu mooy gis nañ ne Ousmane Sonko mooy opposant bi nga xam ne tey jii qu'on le veuille ou non c'est le leader de position en âme et conscience tey jii yàllaa ngi dogal ne euh, position bi mu amee ci wàllu leadership euh, fa tabarakallahu dañ koy ñaanal yàlla na yàlla mottali ko mais gis nañ ne état gis na ne Ousmane mën na ko sonal moo tax ñu koy roof ay galgal ñu koy roof ay galgal mais nag du xeex du wéet ci xeex bi parce que ay parti ñoo ngi ci ginnaawam di ko soutenir di ko jàppale pour que ensemble li ñu bëgg ci Sénégal ñu mën ko réaliser incha allah. tey jii ñu gis ni problème bi moom la woon ak benn nit léegi ñëpp daane ñu bari léegi ñooy jug di ko ci mooy maanaam digganteem ak Adji Sarr la woon. léegi nag nit ñi dem ba ci biir commencé indiwaat yeneen dossier yu bokk tak dossier Adji Sarr ñii ne kat diw day plainte diw diw du plainte parce que lan 14 milliards yi nga xamante ni jot na koo feeñal ngir xamal ko askanu Sénégal yéen a ko dee 94 milliards yi ñu pare tam ci loolu ci wàllum terre bi nga xamante ni tey jii Macky sàll ñëwoon na ne carrément ne sénégalais kat ñoo moom terre bi fekk na terre bi kat wax dëgg fa yàlla en 100 pour cent bi ñun moomuñu ci dara loolu lépp le leader ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko commencé gis secret bi est-ce que nekkul Sonko li mu xam secret yi moo war a gaay ba koo gàllankoor ba ko faagaagal ba moom élection yu ñu jëm ni gaay bañ moom mu yegg. waaw wax naa ko sànq samay kàddu nee naa la l'homme a abattre c'est Ousmane Sonko parce que gis nañ ne euh, ndaw ñi jox nañ ko bopp euh, borom xam-xam la te tamit li muy wax xam na ko te ku teel yi tamit ci ay démarches am xam nga nguur dafay ragal borom xam-xam parce que sooy xool nguur yi daanu ci àdduna bi yëpp. Euh, ki yàlla di yabal dafay nekk nit ku dal nit ku teey euh, am fit jàkkaarloog ñoom mais aussi tamit di defendre li nga xam ne moom lay défendre teg ko ci xam-xam ak fit ak fulla ak fayda nga gis ne moom daf ko incarné wax dëgg yàlla euh, ndaw ñëpp jox ko bopp nag xëy na loolu moo leen tiital xam nañ ne yi tamit ne bés bu ñu demee élection wax dëgg yàlla duñ jàkkaarloog moom sax xëy na suñ demoon le matin de huit balaa mi di jot wax dëgg yàlla mën nañ tëj salle de yi sax xam ne déjà duma nañ leen. comme daal comme ni ngeen ko defee yoon daal ci élection bi. waaw mais loolu dafa leer nañ dañ ko tàmbali ci élection mairie yi am ñuy laam-laamee naan population bi dañoo juum dañoo nangam bañ demee ci législative bi gis nga ni mu demee waaw bañ demee ci législative bi gis nga ni mu demee score euh, bi dafa gën a yokk yaa ngi dégg duma yi gën a metti xam nga parce que en population yi ñoom ñoo sonn ci li nga xam ne moo fi nekk population yi dañoo sonn mais may wax ne Euh, la coalition Yewwi Askan Wi seen engagement seen détermination orientation yi ñu jot ci kilifa yi enseignement yi nga xam ne jot nañ ko jàng ci suñuy kilifa tax na nekk na benn socle boo xam ne jamais au plus grand jamais du ñu basculer dans le mauvais côté de la chose dite politique lenn moo ñu ñor muy soxla askan wi te danañ ci taxaw leader yi ñoo ngi koy défendre ci kaw euh, militants yi ñoo ngi koy défendre à la base te itamit euh, du ñu xuloo du ñu xeex mais lépp dañ koy teg ci yoon incha allahu taala li ñu mën a euh, jël ci ay suffrage danañ ko jël teg ko ci yoon te bés suñ ñu demoon élection suba yàlla dogal ne dañ leen di duma bu baax a baax. tey jii ñu gis ne euh, instant yi nii Ousmane Sonko gars yi convoqué waat nañ ko nga yaakaar ni est-ce que moom bu demee gars yi dañ koy téye wala duñ ko téye. wara a euh, war moom Sonko war na dem wuy ji boobu war a moom bu demee euh, wuy ji boobu Sénégal mën a tax nga yaakaar ne essay jàmm Sénégal tey ji ci Sonko la war a jóge wala tey ji ci état wu Macky Sall tey fa la ji war a jóge waaw xam nga man nag damay faral di wax ne dossier boo xam ne dafa nekk ci loxo justice duma ci faral di addu ndax euh, nu sommes dans un pays de droit te dañoo war a yoon waaye nag su dee ka nga xam ne moom moo war a sàmm yoon mooy jalgati yoon kooku itamit keneen ku jalgati kenn du la wax dara ça ne veut pas dire que ne Ousmane Sonko dafa jalgati mais li ma bëgg wax foofu mooy euh, ki nga xam ne il est censé faire respecter la loi moom mooy jàpp déjà li nga xam ne mooy suñu càtt réew mooy la constitution di ko taayee ca nam ko neexee ndax suñu fàttalikoo ki fi nekkoon ministre de la justice mu Ismaïla Ma euh, Ismaïla Madior Fall taxaw na fi ne problème mu troisième mandat du posé wu Sénégal noir sur blanc defe naa vidéo yaa ngi fépp. kooku su demee taxawaat daal ne dem leen ngeen jaay ay cartes su ngeen jaay lu ëpp deux millions de cartes dañuy poser dañuy poser le débat du troisième mandat loolu moo lay wax ne il y a des gens malhonnêtes te suñu delloo ci baat bi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si waxoon mu ne jamono dina toll foo xam ne il ne faut pas euh, xam nu mu ko waxatee euh, maanaam ñi nga xam ne dañoo amee xel mu ñaaw ci caay-caay na ngeen fexe ba bu leen leen faut il ne faut pas favoriser la médiocrité mm-hmm. exactement baat bi ñëwaat na mm-hmm. donc mu mel ne tey jii loolu la ñuy dund mm-hmm. da ngay gis koo xam ne des intellectuels di fooyee seen kàddu la nga waxoon démb ñu yaakaar ne diw intellectuel la te bu njëkk intellectuel dafa am ci benn niveau bu ñu ko daan xool ñooñu su fekkee ne ñoom ñooy wàcc tey seen kàddu démb ak seen kàddu tey wute mais dans quel Sénégal sommes-nous donc baat boobu mu waxoon ne il ne la médiocrité baat boobu dafa dellu si waat li ngay wax ni am na lu muy junj parce que su ma ne am na lu muy junj mooy maanaam am na ñaar ñoo xam ne dañoo nekkoon France muy Californie ak keneen ki nga xamante ni man jarul mooy tudd tur bi ñu gis ni ay jamono da doon toog di défendre Ousmane Sonko gars yi jékki-jékki dégg ni dañ leen a fay xaalis bu bari ñu ërbitee ko waat tourné waat carte gi commencé xalabaat Ousmane Sonko commencé indiwaat ay kaddu yi di ñaaw est-ce que léegi jotul léegi Sénégal léegi nit ñi gën a yeewaat gën xoolaat suñu réew léegi fan lañ jëm. waaw da ma laaj lu am solo eh, sëriñ Abdou Lahad Mbacke yal na yàlla yokk leeram dañ ko wax ne ko diw dafa jaay ngorom mu ne déedéet amu ko woon ndax ngor ku ko am valeur la boo xam ne doo ko wecceeg lenn ci àdduna waaw koo dégg ñu ne jaay na ngorom su fekk parce que daf ko amul woon loolu kese la. <laughs> olof boobu moom wax dëgg fa yàlla moom yaakaar naa ne ku la jiitu ci néeg bu lëndëm rek moom moo la ko mën a wax mais garaaw xam naa nag instant yi bi daanaka jeex a jeex parce que dafa koy compal parce que dañ ne ko woon dañ fiy jaar ba ba léegi nag ñu di ko wàcc ma bii paa moom dama lay bett bañ ne ba am na koo xam ne sax moom laa àndal dama koy nuyuwaale moom mi nga xamante waaw sama jigéen la sama jigéen ci baax la waaw muy fàttali la moom mi nga xam dama ko xëcc ne ko kaa ñu ànd dem mu ne ma yaa ngi dem di seet koo xamante ni sax woowoo ko téléphone mooy ko su ma ko bettu rek li ma bëgg du ma ko mën a am kon gàcce ngalaama kon comme que bett nañ la yaakaar naa ne liggéey bi lii rek lañ ci jubloon ndax yaakaar naa ki la bett da lay mën dañ koo bett nag mën ko moo waral nag kàddu yi demee nii léegi nag dañ lay bàyyi Daniel kàddu yi nga tàggatoo joxe message ci biir Sénégal ndax comme que Sonko ngi wuyu jiwaat ñu bàyyi la nga tàggatoo joxe message bi nga xamante ni bu subaa wala ginnaaw suba ëllëgu Sénégal bu ñu xalaatee kàdduwee rek war a xam ne jàmm war naa am ci mim réew. waaw fi may tàggatoo déjà dag may may ma sant waa golf ndax euh, dañ ma lebal loo xam ne euh, mënatuma leen ko fay wala dañ ñoo lebal loo xam ne mënatuñ leen ko fay ñun waa coalition Yewwi Askan Wi ndax euh, soo xoolee élection yi fi jaar diggante élection municipale. ak élection législative ak ni score yu demee nga xam ne lebal nañ ñu loo xam ne mënatuñ leen ko fay lépp loo xam ne dañ ko defati dañ ko dawal ci bor bi waaye mënatuñ leen fay donc moo tax en âme conscience danañ xal suñu tànk tubéy pour fexe répondre à leurs attentes incha allah euh, beneen bi ci topp mooy li ma laaj léegi ci ëllëgu réew mi euh, mag ñi dañ daan wax naan Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar kon moo xam état moo xam opposition nañu bàyyi xel ne Sénégal ñoo ko moom ëllëgu réew mi mu ngi tegu ci suñu loxo kon nag ngalawaay li olof naan mu jee puso mu réer musiba la nañu bàyyi xel su dee état na bàyyi xel ne moom mooy war a tëddee njaaxaanaay ndax mooy nday ji seex opposants yi mu bàyyi leen xam ne ils ont ils ont le droit de remplir le droit civique opposition bi tamit ñu bàyyi xel ne ki nga xam ne moom la fi yàlla teg mu war a jeexal deux mille vingt quatre parce que deux mille vingt quatre lay jeexal mu bëgg ko ak mu bañ ko deux mille vingt quatre lay jeexal. nee na troisième mandat day dem de. waa troisième mandat moom defe ne am na ku ko fi doon ut waaye jigu ko mhm. dafa de mel ne nag tey ji euh, euh, kala kala kala xamu nu ko olof te parce que boo xoolee maanaam daal euh, bu ñu xoolee ca 2012 ña doon toog di kaas na troisième mandat du ci am yaakaar naa président moom moo jiite woon mouvement ba. comme tey ji bu ko yàlla joxe tey réew mi tey ji moom troisième mandat ba mu doon xeexee ci mouvement ba ba yàlla dogal tey loolu tey fal ko tey mu nekk président kon yaakaar naa ne ba xelam ñëwaatee kon yaakaar naa ko troisième mandat kon du ci dugal xelam. waaw maanaam troisième mandat euh, soo xool 2012 li fi xew moom mu bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon xeex. doon wax bokkoon ci ñi nga xam ne ñu doon wax naan Ablaye moomul nit ñi yaa ngi dégg su bëggee forcer troisième mandat dañ koy fekk ci pale bi génnee ko mm-hmm. tey ji moom mu taxaw ne dafay laaj troisième mandat vraiment euh, dañ koy ñaan en tant que njiitu réew en tant que kilifa dellu si xelam àdduna amul solo te politique temps la dafay jeex tey jii en 2012 moo fi nekkoon def na deux mandats nga xam ne jeexal na dafay dem. te li ma koy xamal moom président Macky Sall il a une bombe sociale sous la main il faut la désamorcer pendant qu'il est temps moo gën a wóor ndax am na foo xam ne Sénégal bés bu fa yeggee li naan peuple bi euh, seul le peuple est souverain te am na nit ñi fu ñu toll jaay seen bakkan ci tali bi moo leen di gënal nooteel te mel ne nag euh, li ñu naan euh, lay xeeñ foofu la jëm ñaanuñu ko yàlla nag wax dëgg yàlla Euh, di profiter également ci occasion bi di sant toute la classe politique ak golf d'abord mais également toute la classe politique ak géejawaay ndax euh, mën naa ne euh, damay sant yàlla ci bi nga xam ne yàlla def ñu booleeg opposition muy Benno Bokk Yaakaar muy yeneen parti lu mel ne Gëm sa bopp lu mel ne les serviteurs yàlla boole ñu ci benn conseil municipal mais ñu bokk ndey bokk baay. loolu c'est un exemple à suivre tey tamit foofu euh, ki nga xam ne moom mooy jiite tey jii la commune de Golf Sud muy la mairesse Khadija Mahécor joué ci un rôle extraordinaire muy fexe ba instaurer la démocratie au sein du conseil municipal tey jii ki nga xam ne moom moo jiite euh, le bureau le budget participatif euh, bokkul ak moom coalition ki nga xam ne tey jii moom mooy jiite le pôle des commissions bokkul ak moom coalition kon nag exemple de démocratie boobu moom la nit ñi war a instaurer tout simplement parce que c'est des gens yoo xam ne ils sont compétents te lañuy def mën nañ ko mu jël leen teg leen place yi nga xam ne moom la ñu mérité ñun ñëpp ñu ànd liggéey parce que Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy dafa waxoon ne Sénégal dañuy jaawale jamonoy politique ak jamonoy liggéey nee na euh, la euh, jamonoy politique c'est juste le temps d'une campagne su campagne bi jeexee nag ah ñun ñëpp ñu dellu liggéey suñu liggéeyee nag ba campagne jotaat ah ñu daal di wéer jaaj yi nag dem politique yi mais nag da ngay gis fii koo xam ne dañ koy gagné am na ñoo xam ne ñoo ngi politique ba léegi ndax mënuñu accepter défaite bi nga xam ne ay ay ay ay gosse de rien du tout liñ nit ñi nit ñi daan tuddee. <laughs> li ngeen def Alioune Sall biir Guédiawaye. <laughs> waaw Alioune dama koy dama koy nuyu au passage suñu suñu doyen la euh, je lui dois beaucoup de respect mais euh, di wax ne politique noonu rek la parce que ñun ñëpp duñu ay ennemis ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi tey jii li ñu boole woon mooy politique jeex na. li jot li euh, li nga xam ne moo taxaw tembe mooy ñu ànd liggéey euh, nga baal ma rek mu dugal benn anecdote bu ndaw Serigne Ahmed Tidiane Sy daf ñu jàngal ne président Lamine Gueye bañ koy jubooleeg président Lamine euh, Léopold Sédar Senghor déjà acte bi mu njëkk def mooy bañ ne ko Lamine Gueye Senghor dina la fekk si dafa ne déedéet bàyyi leen man ma fekk si ko parce que Senghor il représente une institution kon man maa war a dem fekk ji ko ba fekk ji ko tamit dana ko dinaa la xamal ñaar Sénégal dañuy jaawale adversaire politique ak ennemi ñun nous ne sommes pas des ennemis nu some simplement des adversaires politiques kenn ku ci nekk yaa ngi ci sa parti di défendre sa idéologie bokkuñu gis-gis waaye ñoo bokk penc mi ah ñoo bokk penc mi donc euh, wax dëgg yàlla damay rafetlu ni nga xam ne euh, noonu la conseil municipal bi ci biir golf di doxee parce que tey jii euh, man mi di wax ak yow j'ai eu la chance par exemple sur les 76 conseillers euh, je pas eu de bulletin blanc je pas eu de bulletin nul loolu sas la ndax du waa coalition Yewwi Askan Wi kese ñoo ma fal Benno Bokk Yaakaar ci lañ bokk les serviteurs ci lañ bokk ah euh, gëm sa bopp ci lañ bokk ak yeneen coalition yi nga xam ne ñoom ñoo ngi ci biir ah, ñoom ñëpp ñoo yëkkati seen baat jox ma ko kon nga gis ne ñun ñëpp benn lañ te war nañu rafetal sow mi ndax nag nañ fi bàyyi loo xam ne ëllëg suñuy doom suñu ñëwee gis ne ña ñuy jiitu woon kat rafetal nañu ànd bi donte bokkuñu woon gis-gis ci ay parti waaye vraiment bokkoon nañu ndey bokk baay te xam ne ñoom ñëpp li leen soxal mooy l'intérêt de Guédiawaye ñoom ñëpp li leen soxal mooy l'intérêt du Sénégal te je pense que politique loolu kese la. waaw di invité nag état bi comme yàlla ngi dogale tey jii moom moo am doole ji amee armée bi amee police amee gendarmerie na yërëm population yi euh, armée bi tamit ma leen di invité di leen wax ne seeni doom. ñooy wàcc tali bi seen i jarbaat seen i jigéen nañu am tuuti tolérance par rapport ak doomu aadama yi nga xam ne ñoo ngi wàcc tali bi nit ku am lu la metti sa xol dana fudd te soxal su fuddoo di nga am noo doxalee waaye ñoom ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk doole nañu jëfandikoo doole jooju à bon escient nga xam ne duñ ci lor population yi waaye tamit ëllëg ñoom ñu xam ne danañ taxaw ci kanamu suñu borom euh, rendre compte ndax yàlla tey jii moom mi nga xam ne moo am doole su doon saa buñ juumee mu mu dal suñu kaw kon defe naa ne kenn dootul deseti ci àdduna kon nag ñoom aussi ñoo ngi leen di ñaan ñu def euh, preuve de tolérance te xam na ñu ñoo bokk lépp alhamdulilah yéen a ko dégg loolu la tàggatoo yaakaar naa nag ñun lii mooy suñu wareef parce que yaakaar naa ne tam dëkk nañ ci secteur bi waaye yaakaar naa ne amuñu fi parti ndax bu ñu nee amuñu fi parti mooy maanaam dañuy xool li nga xamante ni mooy développé suñu réew développé suñu gox parce que ñun suñu gox bi rek moo ñu yitteel yaakaar naa ni kaddu gu rafet ak jikko ju rafet ak wax ju rafet ak yéene tamit sa biir gox ak bëgg tamit Golf Sud yegg fi nga xamante ni fa la war a yegg ni dëkk yëpp moo waral tey ñu yëkkati suñuy tànk bett ko daal di ñëw ndax yaakaar naa ni ki koy jéem ak ki ko mën duñu benn ñun nag dañ koo mën nag jéemuñu ko moo waral nag te dañ ko bett ak doole lii nag lañ fi indi tey lii mooy lan seen kàddu askan bi di leen war ni nag yéen ñi nga xam ne yéen ñi ñu topp di ñu siiful yaakaar naa ne fu ngeen ñu yónni rek fa lañ jëm tey nag fii ngeen ñu yónni woon yaakaar naa nag grand Ibou Diop moom dañ koy bàyyi xam nga sant ko gërëm ko di ko xamal ni nag fa teg tànkam foofu la na gën a liggéey ndax Golf Sud dañ koy yónnee yàkkamti ko xadimee ko nag ngàcce ngaalaama di la sant di la naa ne bi nga fi toogee yàggul yaakaar naa nag am na loo xamante nag suñuy bët nag may nañu ko parce que yaakaar naa nag ñu toog ci ruq bi nag te gisuñu te bokkuñu yaakaar naa ne nag man mi nga xamante ne maa bokk ci biir gox bi yaakaar naa ne nag li ngeen soxla maay koy jëli indi leen ko tagal leen ko ngir ngeen ne carrément ñi seen i kàddu jug na ndax seen i jëf ndax bu fi toogee yàgguñu yàggu fi mais teewul nag am na lu fi jot a defar ku weddi nag li may wax nag demaatati bi biir golf ba di nga gisaat lu beesaat tàq parce naa ne fu doonoon ay ruqu ko fas yéene ko def ay bureau am na koo xam ne nag sama jigéen la dama koy nuyuwaat dama koy nuyuwaat Fatou Sylla yow benn nga ci man yaakaar naa ne yal na la yàlla dafa jàmm di ci kanam nag rawati bët Sénégal xëpp leen seen bët di ñu xool fi ñu jëm nag ñoo ko xam kaddu askan bi Bienvenue sur Salam Vision.